xam ne bu fàtte woon ci sa bitig ba benn keesam ñu ne mu ngi ci mu ngi ci ayda mu ne danaa óolu mel ni mu biir nekk ah. mu ne na la óolu itam bi nga xam ne bu tukki woon bàyyee këram nga toog ak moom nga dend ak moom kër dañ ko bàyyi xel ñi mu dégg ne diw sàngam dugg na sa kër dana óolu mel ni moo fa dugg waaye léeg-léeg nag nga dëkk nit nga tollu fa ñu ne diw dugg na sa kër nga ne wax nga ay waaw mu ne dina wax gaa yi <laughs> yaa imaam ñu ubbi laay nii nga continuer ah, eh, bon nag eh, yéen mbokk yi ñoo seetaan eh, waxtaan wi neex na ñu ngi ci biir axi dikkandoor léegi mun nañoo ubbi téléphone yi 437 3910 437 5905 pour bi nga xam ne bëgg ngeen koo laajte ci mbiri axi dikkandoor muy lu ama am solo imaam ubbee na ko bunta yu am solo muy ñetti dëkkandoor yi nga xam ne ku ko bàyyi xel doo am problème doo am jafe-jafe ak sa dikkandoor bi doom aadama moo di eh, yàlla mi nga xam ne fu nekk mu fa ak ñun ak malaayka yi nga xam ne moom it ñu ngi ànd ak ñun ak ñi nga xam ne moo di suñu cër yi mm-hmm. eh, loolu nag muy ay dëkkandoor yu am solo yoo xam ne eh, lu jara bàyyi xel la balaa ngaa xalaat sax dëkkandoor bi nga xam ne moom nga nekkal ci benn béréb bi moom nga bokkal koñ bi wala moom nga bokkal gox bi muy lu ama am solo yaa imaam mm-hmm. nga continuer balaa ñoo am téléphone waaw waaw jërëjëf euh, ci sa contribution am na ko nekk ci line bi <laughs> asalaamaaleykum asalaamaaleykum bisimilah. allo salaamaaleykum. Ah, ah waaw. waaw ba nag dëkkandoor mooy loolu li nga wax léegi ne ku ragal dëkkandoor yi njëkk ya sa dëkkandoor nit ñi dana rafet mooy lu am solo mu ne moo tax ñun ki ñu wax ki ñu wax Abdullah ibnu Masud radiallahu anhu asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah bisimilah ah naa network yi la ku ñu wax Abdullah ibnu Masud radiallahu anhu dafa wax ne dafa nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax dafa wax ne maa ngi géñ ci yàlla bi nga xam ne sama bakkan bii ci loxoom la ne mu ne wallaahi nit ki du mucc feeg mus feeg nit ñi mucciñ ci xolam ak ci làmmiñam asalaamaaleykum asalaamaaleykum maaleykum salaam ah, jaam alhamdulilah uh, waxtaan bi koy koolee baaba fan ah Lamine Daaranka boo mu nee wàññi télé télé bi tuuti rek wala nga sori ko ñu mun a déggante bu baax hmm. bisimilah alhamdulilah hmm. ñu nga ekkati kàddu gi tuuti rek <laughs> ñu lay jéggalu bu baax nag mm. waaye na jéem dugaat parce que mm. waaw hadis boobu ibn Abdullah ibn Mas'ud moo ko nettali mu ne yonent bi sallallahu dafa gëñ maa ngi gëñ ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan bii ci loxoom la ne mu ne nit ki du mucc du mucc mukk nag fekk nit ñi mucciñ ci xolam ak ci làmmiñam ak ci loxoom mu ne nit ki nag du muy gëm yàlla mukk nag fekk nit ñi mucciñ ci aw xayam muy lu doy waar tey surtout làmmiñ. dafa am ku nekk ci line bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah. waaw man li ma bëgg a laajte mooy. Hmm. ñu ngi njëriñ si jàkka bi de si kër bi lañ gën a asilaay. waaw. waaye suñu imam bi dafa tudd waaye léegi imam bu ñu amee yàlla du du du baax du baax. imam bi. imaam bu ñu dee waaw waaw. léegi bu ñu dee jiite fii boobu moom jàngaan ci alxuraan dëgërul bu baax soo xawma ndax mën nañoo fexe di continuer jël di julli te moom mooy jiite foofu. waaw. ah. <laughs> mu ne imaam ba leen daan jiite dafa tukki léegi ka fa nekk jàngam alxuraanam soriwul xaw ma loolu ñoom nuñ ko xamee nag mu ne ndax kooku war ñu julli si gannaaw bu fekkee moo leen tane moom mën na leen jiite waaw su fekkee njàngam hmm. moo leen tane hmm. na leen jiite hmm. su fekkee nag ñoom ñoo ko tane nañ ko jiite waaw ah, loolu rek la waaw ah. <laughs> bon foofu leer na waaw waaw mën ngaa jëkkali waaw ba léegi ba tey mu ne ki nga xam ne nit ñi mucc ci làmmiñam mucciñ ci ay loxoom mucciñ ci xolam maanaam xol mooy xañaan xol mooy añaan ah. moo tax mu ne mucciñ ci xolam mm-hmm. mucciñ ci làmmiñam làmmiñ mooy wax dëgg la mucciñ dafa am benn gis nga làmmiñ ku ñëw waa euh, euh, Luqmaan dafa dafa waxoon doom ji ne ko dama bugg nga dem marché jëndal ma la fa gën a baax mm-hmm. jëndal doom ji dem jënd làmmiñ indi ah. <laughs> mu ne ko soo mu teeléeg sa mu demal na ko demal marché jëndal ma dafa gën a bon ngeen indil ma ko mu indi làmmiñ mu indi làmmiñ waaw mu ne ko waa yow lu tax ma yónni la na la dem allo ah bisimilah asalaamaaleykum salaamaaleykum bisimilah ba dama laajte nga dëgg dëgg noonu boo xam ne su amee rek dafa naka war a dikkaa moom su amee lu am rek dafa ah wow wow puukaroo waaw nga danga war a dëkkaat moom ah ki nga xam ne bu amee danga ko puukaroo waaw wax nañ ko ci biir wax ji waaw puukaroo ci alal mm-hmm. la gën a rafet ci puukaroo mm-hmm. mooy dimbale ci jaami yàlla yi waaw loolu mooy bu gën a am mm-hmm. parce que yaay puukaroo alal te joxoo ko parce que alal te loolu boo ko defee rek da ngay xeeb ñi nga dëkkal alal ñaar rek la man waaw ñaar waaw ñaar la man nga dem bàyyi fi wala mu dem bala fi waaw bu Mm-hmm. wala mm-hmm. nga faj ci sa soxla fajo ci sa soxla mm-hmm. nga def denc ko denc gi yaa ki ko ñàkk yéen a ci bokk yam ngay xool muy xool rek waaw <laughs> bokk bon daal kooku du dëkkandoor bu baax daal du bu baax kooku du dëkkandoor bu baax du dëkkandoor bu yaakaar naa kooku dem na nga jekkale làmmeñ bi. waaw waaw mu ne ko. la mu jënd làmmeñ indi ko. la baax muy làmmeñ la bon la bon muy làmmeñ. waaw waaw yow lu tax ma yónni la nga dem dama seetal ma li gën a baax. Mm-hmm. nga ma làmmeñ. Mm-hmm. ma seet man dama seetal li gën a baax lu gën a bon nga jëndal ma ko indi ko. Mm-hmm. nga indi làmmeñ mu ko waaw. ndax lu yàqu làmmeñ ko yàq. ñu ko defar. wallaahu moo tax ma ni la ñaari yëpp. xam nga loolu beneen xikaaya beneen xikma la. yi nga xam ne làmmeñ moom lu muy yàq bari na lool. incha allah naa am dana am jamono bés ñu ñëw def ko ba topic boo xam ne bii mhm. dañ ci waxtaan ci li mu yàq ak mhm. lan mooy làmmiñ ku ñëw wax ibnu abbas radiyallahu anhu dafa wax ne am na ñetti jikko yoo xam ne yii nekkoon na ci jaahiliya jaahiliya mooy jamono bi nga xamee ni islam ñëwagul ak réer am loolu mooy jaahiliya mu ne mu ne mu nekkoon luñ sopp ci ñoom mu ne nag waaye jullit ci boppam moo gën a xëy ci moom mu def ko mu ne bu ci njëkk mooy suñu amaan gan bu wàccaan dañ daan fonk gan gi di yittewoo toppatoo gan gi ñoom dañ ko fonkoon ah. mu ne ñaareel ba su fekkoonte ne dañ amoon soxna soxna si dem ba màgget ci kër gi mm-hmm. lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg duñ ko ñàkkee kersa kala dañ koy toppatoo te dañ koy dimbale te dañ ko jox cër itam mm-hmm. waaw ndax la ñu mën a cey léegi ah cey <laughs> <laughs> léegi kay ah. mm-hmm. waaw waaw loolu moom doy na waar trop mun a ñetteel ba waxtu wuñ dëkkaan ak seen dëkkandoor mu am bor bu ko jaaxal wala mu am jafe-jafe ci boppam mu ne ñoom ñëpp dañ ànd toppatoo ko dimbale ko ba bor boobu ñu fay ko la ko jaaxale ñu dindi ko mu seen jikkaloo woon ci ñamono wax dëgg yàlla nag loolu nag amatul de mooy léegi dëkkandoor sax dañ xamanteetul imaam mooy li xam ne ma ne ko dëkkandoor sax xamantewuñ léegi xamanteetuñ xamanteetuñ su nekk nii mm-hmm. moo tax loolu yëpp mu nekk loo xam ne lii mm-hmm. dafa nekk ci loo xam ne doomu aadama daf ko war di dund ci daf ci dundam daf ko war a def itam ci xelam ci wàllu loo xam ne daf ko war a daf ko war di jaamoo yàlla mm-hmm. dëkkandoor daal mooy ki nga xam ne yow am na loo manqué moom it am lu manqué mm-hmm. lim manqué yow yaa ko amee moom it lim manqué euh, moom lim manqué yow yaa ko amee yow it li nga manqué moom ñu jël ki ci line bi salaamaaleykum asalaamaaleykum salaamaaleykum. bisimilah. hello. waaw bisimilah ndaw si wàññil télé bi tuuti. wala nga sori ko. hello. allo. allo bisimilah. Ah, ñu ngi laa dégg waaw kooku am lu manqué yàlla jox la ko. Hmm. yow yàlla jox ko. su ko defee ngeen war a wécci wante. parce que amul ku motal amul kenn ku ne ci àddina bi di ne da nga